sopp na bi group ci njiitalu El Hadji Mor Gueye sopp na bi nekk promoteur immobilier bu mag fii ci diwaan bu senegal rawatina fii ci Thiès taxawaayam kenn umpaleetu ko ci wàllum suuf ku ni suuf ni dëkkuwaay ba moo waral moom moomee mu taxaw temb ngir képp koo xamante ni bi nii soxla nga dëkkuwaay nga am ko ci nu mu gënee mucc ayib moom gay Gueye sopp na wi daal am ab lotissement bu mag yemb lool te accessible fii ci diwaan bu Thiès. site bi site bu baax la mu site la boo xam ni tàlli na. rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal awliyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi gannaaw bu ñu santee sunu boroom subhaanahu wa taala di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sunu boroom yal nañu yàlla gën a dimbali gën ñoo jàppale ba ñu yeggale koor geeg alhamdulillahi rabbil alamin ndax weeru koor weer la woo xam ni di weeru yërmande di weer woo xam ni weeru solidarité la waaye di weer woo xam ni weeru dimbalante ci mbaax tabarakallahu du nuyu sunu sponsor boobu di alxaaji Mor Gueye sopp yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam, diko di bu baax waaye nuyu mbokkam mu baax mi nga xamni tabarakallah moy borom tele bi di hajj papa dumbiya ko ñaanal sunu borom moom ci weer wi yalla na gën ko motali ay bëgg-bëggam yépp ci barke sayyidina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, sallam ñom elage fa tabarakallah ñu nekk ci régie bi ñom soxna khadijatu ñu leen di ñaanal ñomit yalla yalla na gën leena sam di nuyu al hajj musa mbay yalla gëna rek mbokku daara grand Serigne de Thiès ci cinq minutes yi nga xamante ni bi fa tabarakallahu mooy waxtaan wi ñu fat ngir mu am jeexital ci ñun waaye wax naa la ko démb nii la sunu boroom subhanahu wa taala Cheikh Fall mooy génn fu ko kenn foogul xam nga nee na yuxriju alxaya min almayit wa yuxriju almayit min alxay may fekk lu dund ma génn ci lu dee may fekk lu dee it ma génn ci lu dund allahu akbar yàlla muy karim mbokk yi gis nga yobu soo bëggee noppaliku nga jox sa boroom tabaraka wa sa bopp ndax moo lay noppal yow jàmm bi doo ci am stress dooni su ma yëgoon ndax topp yàlla moo sakkan topp yàlla moo sakkan beneen mbindeef boo mën na laa jaamloo boo bàyyee sa yitte yépp topp Cheikh Fall fu Cheikh Fall topp Cheikh Fall topp Cheikh xam nga Cheikh Fall lu muy def daf lay jaamloo maccodo la lay jàppe maccodo moom la tuddóori na kii sama jaam la waaw ndeysaan sama benn Omar dem may gis benn boy këram ma ne ko waa Omar kii fu mu dëkk mu ne ma non kii suñu jaam la quoi <laughs> ma ne ko eh way samba biir jaami yàlla ya ngeen bëgg ci amaat ay jaam fan ngeen ko teg fan ngeen ko teg jaaduwul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in koo ko wax ku dul yàlla mu fawe la iyyaka na'budu yow la ni jaamu wa iyyaka nasta'inu Cheikh Fall yow ya la ni dimbali ko kon idna siraatal mustaqim teg ñu ci yoonu ñub yàlla moo la mën a teg ci route bu jub xooj sa kër boroom tabaaraka wa taala waaye jaamu yàlla boo topp ni yow mu wëlbatiku fale la du la delloo ci yàlla mukk daf lay kay jëmale ci boppam xiir la ci boppam di la wax boppam nan la boo xamoon jinne yi ma yor may yi ma yor boo ma toppee ba den di déwén yek sa bop dalay nax dawal cheikh fall nga daw top sa borom subhanahu wa taala mo sakan moy buri buri ñi fi falu ñépp moma wax la ko dim xam nga genn na fo xamni ni kenn yaakaaru ko kenn yakaru kon ku baye ak sa borom sa bop moy wërsegal nit ñi wa man yattaqila laa yaj'al lahu ma'rajan yalla yalla la lo ci man faal li yurid amul logique du problème mu jaamam ñi ñu mu ko neexee xam nga boo jàngee Ibnu Duraydu du Kébé am na benn benn benn bunt moom lay jàngal mu ni summa ibnu aynin e benn buur la woon ibnu aynin boo xam ne am na ci bis yoo xam Cheikh Fall bu dajeeg yow dangay ngay tedd da teral dalay lay ay naafi or waaye am na ci bis yoo xam bu dajeeg yow xoolal da lay mbugal moo tax mu ne borom ibnu duraydun summa ibnu aynu lu ala lay jàngal wax balaa pour kàddu goo dégg ci loo atu da nga ko mën a firi mën a xam fu mu jëm ilul faa ilul déggal leen ma nag maa ngi jëm foo waaw waruma faa dugg sax waaw waaw waruma faa dugg waaw ndax grammaire day saat man li wax li Iran daal wax naan élève bi laay waxal rek waaw ci mustawa bu wàcc waaw ndax nit ñi fi mu waaw ndax nit ñi fi mu ni pénc dafa jaxasoo faw ñu orienté nit ñi wax leen fi ñu war a teg seen tànk nee naa la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu koo ko waxu sa borom ba fawe yàlla fi nu ñu wëlbatiku dëgmal sunu borom tabaraka wa taala waaye buur boobu man ne te ko xam maa fa laay daanele am na ci buur bis yoo xam ni yow dalay teral waaye am na bis yoo xam bu dajeeg yow mbugal mu ay mbug moo tax mu ni nu indin am sa yowmal uwaraat bi su uwaraat tamimam ak giiru tamim bi saraa ca njaa mu ni ba mu dajeeg giiru tamim ñoom ñépp lañu ñu jaale ndax lu metti la mu leen tegal lu tar la mu leen tegal moo tax góor sëriñ Seex Tijaan si al maktuum al gisuma kuko raw ci rew mi dum néewuma nak mo fi raw waye gisuma kuko raw ci rew mi neena bisu de ku ci dundu yambar nga bisu du bisu dundi ku ci de yambar nga leen top nit ñi ñu leen di manipuler di leen jëmele fo xamanteni bi jaaduwul yàlla nit ñi lo muy sayyidina muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, sallam kana kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana uswa it baax na iswa baax na uswa baax na yàllaa ñu ko royloo ni bu ngeen bëggee am bu ngeen bëggee am idol pire roywaay pire xool leen sallallahu alayhi wa sallam ndax lu yàlla bind moo ci gën a mat loolu sunu maam Cheikh yonent bi yonent bi dafa tedd min kulli wasfin amidin haaza afala tafdilu rajaul baraya يوم مصدعني الله اكبر ثم مشى الحاج مال نينا الله يوم الخيام بس راج روبا ما مودو نينا رك لا نفا ياكار مي صلى الله عليه وسلم كو جوب داي داو كو ياكار ني ول بوكو تي رك بوك بو لكي سي جينار بامو نيه توك تال سي كليم توك تي ساب سال سي طالب و nga defé ya fi né ni wu fi yalla fi bis dana jot mu teg la métit woo xam ni doo foo xam nga ko bis day jot mu teg la métit woo xam ni doo xam foo jëm ak moom kon yónent bi moo mat sëkk sunu maam Cheikhul Xadim nee woon na huwa akmalul wara xalqan wa xulqan xalqan ci benn wa xulqan ak jukko Cheikhul Xadim nee na yónent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën a mat gaañi ci loolu lépp ci bind bu rafet ci bind bu taaru li maamul Buseyri ni yàlla dafa te ñu ne yàlla bi muy bind yonent bi dafa mel ni daf koo taxawal ni ko eew bindee la ko sallallahu alayhi wa sallam am na yàlla may dégg ak topp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika lallah bi aziz asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci njiitalu El Hadji Mor Gueye Sopp Nabi nekk promoteur immobilier bu mag fii ci diwaan bu Sénégal rawatina fii ci Thiès taxawaayam kenn umpaleetu ko ci wàllum suuf ku ni suuf ni dëkkuwaay ba mo waral moom momé mu taxaw temb ngir kep ko xamanteni bi ni soxlo nga dëkkuwaay nga am ko ci nu mu gënee muccee na am ab lotissement bu mak yamb lol te accessible fi ci diwan bu ties site bi site bu baax la mu neeru site la bo xamni euh accessible na.